أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يتفقوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجناو راي انفو تي في ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen naan ngeen dal ak jàmm fii ci ginnaaw raay ku gis si buntu jàkka ji ñu taxaw mu xam ne dëgg-dëgg ñu ngi ginnaaw raay quartier Issa Meng tey 14 ku ko wax sa xel dem ci góor gu sell sa xel dem ci nit ku baax sa xel dem ci nitu yàlla kooku mooy Mawlaay Abdel Aziz ibn Cheikh Seyd Al Hadji Malick tre 14 septembre 97 la fi bàyyeekoo woon tey 14 septembre 2021 di 24 ans macha allah ñu ñëw fii ci ginnaaw raay fekk si fi ay xale di waa groupe Sopp Serigne Babacar Sy ànd ak fondation groupe Sopp Serigne Babacar Sy ñu fas yéene ndokkale seen maam jooju diggante bi am na ñu ci ganewu loon àdduna waaye cofeel topp leen ba ñuy defal góor googu ñaan looloo ñu indi ginnaaw raay ki ci micro di seen mbokku daara Bouba ak Tidiane yi ki ci caméra bi di El Hadj Modou Kane la caméraman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 يشاء جانغ ci ñun ni ñu tol ak suñu lamiñ di ñaan yalla yalla ko yalla nangu ci mom ni mu tol ak kaddom ak lamiñ alhamdulillah nak biñ ko tambalé ci jamm jéxalé ko wat ci jamm mu am lu dess ci kamil bi muy qadmul qur'an buñ ne qadmu nak moy ñaan bi ngay def ginaaw bi nga jàngee kaamil bi ba pare pour jéem a far yàq-yàq yi ak damm-damm yi nga def ndax nit matul ku nit bu fekkente ne jàng na alquran am yaqin ne lii ma jàng lépp mat na baax na rek njuumte mën naa dugg ndax ku ne ak ni ngay jàngee ku mu ne ku ne ak ni ngay jàng amaana nag ñun ko jàngee mën na am ñu jàpp ni baax na wala jub na wala yàqu ñu baat wala dammuñu xaraf wala rëq wala te alxuraan bi tey ñun amuñu si benn yàq-yàq alors que ni loolu lépp mën na am ci ñun nuñ ko mën a jàppee muy lu baax mais ci yàlla dara baaxu ci. comme nga ne dara baaxu ci nag lii ñu bëgg a tegaat ci alxuraan muy xatmul xuraan moom mooy faraat bépp dam dam damm yiñ ci yàq kon ñu ngi ko bëgg a jàng ci ndigal ñaanat ko yàlla liñ ko waxee woon sànq ñu fi dax a daje di waajur yi jiitu ak suñu mbokk taalibe li suñu rakk. di suñu soppee di suñu xarit di taxaw bis bu mel ni heure bu masaan jot ci at bi moom mu nekkoon pas-pasam ci moom mu ko doon liggéeyal ci boppam ba dem na ba mujjanteelu kàddu yi muy wax ak ñun bokk na ci ndénkaane bisam bii kon su ko defee bu yàlla defee ñu teew ci ñun ah war na wax dëgg yàlla ñu def ñun suñu yéene ci bis bi te nag suñu yéene lii moom bokkoon na ci yéene moom Abdou Aziz Faye mu jàng alquran jégaleel ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais def ko xëdd ci turandoowam ñaanat yàlla bis bi mu koy fekk yàlla nag moo àtte ni moom amaana ne ñaar ñett at ci ginnaaw du ko fi fekk ci biir àtteem mu waxaat waajuram bu jigéen du ko fi fekkaat ci biir mu waxaat waajur bu ngur du ko fekkaat waaye tam magam bu waaye magam bi fi nekkoon du ko fekkaat comme nga nag ñu ñëpp nag wuyu ji nañ dañ leen di yéenewaale ci kaamil bi ñaanal leen yàlla ñoom ñu dem yàlla yàlla yërëm leen te yàlla yàlla jéggal leen yàlla nañu rocc liñ doon yàggee ca kaw suuf bii ñu nekk ndax kat Seydi Hajji dafa wax ni wa in adhakat yawma ay nag satabixi bi surati kon nag wala xare bi lazatin la hiib nee na àdduna képp ku mu loo bés nga xëy àdduna reetaan loola jàppal ni bu ngoonee dina la jooyloo ci lu gaaw moo lu mel comme ni ki nii kon nag peex amul bànneex mënta am la ca gën a bànneex nekk musiba wala muy nekk safara kon nag boo ko xasee xamee noonu lépp lu ñëw sa kaw inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon nag mu ngoog su ko defee wax dëgg yàlla dañu ubbi di ñaanal yàlla kii war a jàng xatmu bi bépp baat bu mu wax yàlla ko yàlla nangu te lépp lu ko jàngee it lépp lu mu ci yàq it lépp lu ci jub it yàlla yàlla jël lépp gën koo defaraatal boppam moom enregistré ko ci carnet yi ñu jiitu. ngir ñu ñun suñu wàll ba ñu fekk di leen ndax kat kóllëre la tam moom moo ñu ko dénkoon kon war na képp kenn ci ñun bu dajeek moom fee mu tëdd mu lay rendre compte ci ñun nañ ko daan defalee ci bisam bi ko su ko defee le 14 septembre bisam la Abdou Aziz Faye mu mu amaat occasion ci turandoom ak ñaari waajuram ak magam kon alquran mën alquran ko mën nañ ni mën na lu ne ndax ba yàlla ne bismillahi rahmaani rahim dafa nopp bismillah ñi ngi tàmbali suñuy kaddu suñuy jëf ci turu buur yàlla yi nag ay xéewale bépp mbindeef bu nekk ci àddina parce que bépp mbindeef la wax kon mbindeef ñëpp ay dugg nit jinne rab malayka ñépp daal ñëpp kenn ku ci nekk akit li la yàlla di dundale bu dee ñun nag mën na ni gëmul yàlla sax wa ilaa tey mën nga nit pays nasaraan ñoo gën a ñoom la yàlla gën a jox alal que ñun déedéet ñun alal am moo gën àddina ak la ci biir alxuraanul karim des nag ni dina génn àddina ña xaw koo ñàkkal feera mais moom loolu rek la fa soxla fii mu tëdd ñun nag alhamdulilah bi yàlla defee day kaamil bi mag bi ñu rax ñu ko santaatee yàlla mais moom ci ndigalam lañ ko defee mais ci ndigalam la ñuy ñaanee xatma bi ginnaaw loolu ay ndaw rek a fi toog kon nag ko dëgg yàlla bu ko ay xale jàngee yéene ko.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 واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وزك وذكرنا بما ضربت فيه وذكرنا بما ضربت فيه من المسلات والكفرات بتلاوته عن بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو ونسيان عصيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير وزيان أو تأخير وزيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عنده أو تأجيل عنده تلاوته أو كسل أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا وسط الجنان وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وزاد ذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودلالنا في الخيرة ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم احتم بالسعادة أجالنا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقر اللهم اجعل تفواك زادنا ووثقت بك زخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد لروح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولأ ولأرواح, ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذريته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولروح آبائهم وأمهاتهم ومسايخهم ولروح جميع المسلمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولروح آبائنا أبونا محمد محمد فاي وأمنا بند فاي وأبونا باب مود فاي وأبونا محمد فاي وإبراهيم فاي وأمنا فاطمة فاي وأبونا باب سو وبات جلو وبات جلو ومرمبا سونجاي آمين ومر باس اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولروح آبائه وأمهاته وأزواجه وزريته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولروح آبائهم من Amadou Faye wa Penda Faye wa Pape Modou Faye wa wa Pape Modou Faye wa Maw وما عبد في وإبراهيم في وفات في وباسو وبات جالو ومر باسنجاي ومر بند بي ومر بند من ومر ومر مجد جاي اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولروح آبائه وأمهاته وأزواجه وزريته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولروح آبائنا وأمهاتنا ولروح آبائنا وشيخنا ومقاعدنا شيخ شيخ محمد شيخ محمد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 اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم جرجف جرجف واغنا راي انفو تي في ميرسي بوكو امو كاميرامان مودو كان كوم نين لين كو واخي تا تامالي غا نيغي في nga xamantene moy gnaw ray ñew fi nga xamantene tay mun naa ne une balle deux coups la ñaari mbir a ñu fi dajale waaye lépp benn la muy ñu ñëw di ñaanal sunu xarit ki nga xamante ne ñun ak moom yàgg nañoo ànd muy Abdou Aziz Faye yàlla na suuf oyof ci kawam yàlla yeesal yërmande ci kawam. waaye bés bi yamoog la 14 septembre ñu ci ñaanal sunu maam ma naan maamu képp ku bëgg a baax sa maam la muy El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh ba ñuy yegg si fekk nañ ñuy jàng kaamil bi ànd nañ kook ñoom. ànd nañoo ñoom julli timis pare oustaz Abou Fall jàng xatmul quran boobu ngeen doon gis jamono ji ñu ngi toog ak ki nga xamante ne xarit la ci ñun mag la ci ñun soppe la ci ñun waaye it sëriñ la ci ñun di xalifa a Ababacar Ndiaye oustaz gannaaw bañ la nuyoo ziar la di la ndokkale ci bésu góor gi tey di sàkku ci yow ñaan nga ñaanal ñu ñaanal ñi ñu am ak ñi ñi am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 ñingi nuyu wa kër gi ñepp tabarak daal wax deug yalla goor gi dal mi ngi non wa goor gi mi ngi non tanaka li gay mo dak lem buñu suukar ci bir dina neex euh, ñam ko nak moo tax ñu wax mais ñuko ko xam deug deug deug deug ñoom bis bi ñuy ñaan sax mu ñu buñu jangat ci kan moy Cheikh Abdou Dabakh kon nak suko ko mënu ñu xam lepp bu wax ñaanal yàlla yàlla yàlla jubal ñu yal yàlla taxaw yal na yàlla sàmm yal yàlla barkeel yal yàlla aar yal yàlla defal suñuy mbir biir ak bit yàlla bu ne suñ mu jëntaloo ndaje nag ci barke yonent bi yal na fi corona jóge yal fi malkal mu wuti gëj yal yàlla dundal ñu yal yàlla sàmmal ñu boppam yàq-yàq yi am ci dëkk bi yëpp yëpp yëpp yàlla buñ ci yàlla natt yal nañu lépp umpi ci barke alquran yàlla yàlla téel ñu boppam sàmmal ñu suñu ndaw mag ñu yàlla féetale mag yàlla yàlla dëgëral seen pas-pas wëral seen cër ba nangu seen ñaan gi ñuy ñaanal te yéene ñu ko ñu nit yàlla yàlla defal ñu sutura ba yéene gi ñu am ci ñoom a xol bu lafet yàlla yàlla mottali ko suñu ay waajur su ko defee ñu ngi jéggalaat suñu kàddu ak guddal loolu lañ woon nañ ko waxtaanaate ak yéen laay ba jéggalaat suñuy kàddu ci guddal gi tabaarakallahu salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf dégg nañ kàddu yu am solo yooyu nga xamante ne ni ma ko waxee ca tàmbali sunu xarit sunu mag sunu soppe waaye di sunu sëriñ di xalifa Babacar Ndiaye al oustaz yëkkati na ko lépp lu mu fi wax walla mu jàngale ko fi yàlla na doon ay yiw ñu koy ñaanal moom yàlla defal ko jàmm wax dëgg fa yàlla sëriñ la waaye. da wàccee bopam def suñu bop def ñu ne bopam lepp lañ koy laaj mu ñu ci tonto num ñu ci tonto waaye wax deug fa yalla ñun ñu ko ne ku yegg ca yalla la ku fess del la yalla na borom bi dolli encore une fois merci beaucoup à Modou Kan le caméraman de tous les caméramans comme ni ma koy waxé sama frère waye may remercier wa groupe sop Serigne Babacar Sy mention spéciale